maanaam jàpp bis boo xam ne ci weer bi dañuy seetal suñu suñu dëkk daal. ñu ko président de la république euh, définir mooy bëggoon na Sénégalais yi euh, samedi bu njëkk ci weer bu ne ñu génn nettoyé mais loolu junj la wax bu nekk fukki déggin la laaj loolu mooy saxal leen set ci seen mbir symbolique bi rek mooy euh, di génne le premier samedi de chaque mois mais ñun xaaruñu woon loolu sax depuis mu joxe ndigal bi commencé woon nañ di ci liggéey par exemple looy woote da koy njëkk sa bopp dem nañ fa nettoyer ko curé ko ak yeneen ateliers yi ak euh, les dortoirs ak yooyu ak Sirnos ak direction général ak direction générale annexe ak yëpp dem nettoyer ko gin ko nettoyer defal leen fa aussi ay jumtukaay ay poubelle ak yu demee noonu nga xam ne nit ñi danañ am reflexu lépp loo xam ne mbalit la war a doon euh, ñu sànni ko. moom nag moo ngi ñaax askanu Sénégal gi yëpp ngir ñu gën a yokk seen civisme te jàpp si liggéey bi. waaw xam nga olof dafa ne nit ku mënees na ko tibal mënees na ko saxal mais wanaas ku nekk yaa ko mënal sa bopp bu ñëpp toogee di xaar euh, état bi def lépp euh, gëm naa ne du ma ne du sotti de waaye am na yoon wu gën a yomb mooy ñëpp gëm na ci lañ bokk ñun par exemple xaaruñu kenn ñun bi président waxee rek ñu dégg ko euh, dañu commencé di ci jëf wut suñu matériel bopp di gën a seetal suñuy mbir mais aussi di jàppale les collectivités locales ak les collectivités territoriales léegi yëpp pour ñu pour mu pour mu gën a set te fépp foo xam ne aussi gis nañ ne en tant que citoyen sénégalais war nañ faa mën a dem pour joxe un coup de main cheminots yi pare nañ pour dem euh, bu ñu liggéey li ñu liggéey ba pare euh, dem takku liggéey ko pour Sénégal bëgg nañ daal suñu réew changé. et je pense que lépp looy def dans la vie coordination maanaam lëkkaloo da cee baax moo tax euh, ñuy féliciter le préfet de Dakar parce que moom fan yëpp wax dëgg yàlla mi ngi depuis mu conscient que ne cheminots yi am na apport bi ñu ci war a def ba ay xaaju guddi sax dañuy échanger. pour mu bëgg citoyens yi génn jàpp ci préfet moom ñu ngi koy féliciter di féliciter le gouverneur et toutes les autres autorités di euh, féliciter aussi la direction générale bi nga xam ne moom lañ dégg lépp lu jëm ci wàllu setal waa petit train de banlieue ñoo doon amal seen bésu setal ginnaaw ba ko njiitu réew mi digle naam sax ñu nga ko doon amal balaa boobu te lu ñu mel duñu ko dakkal mukk ndax bokk na ci liy jëmale réew mi kanam